Euh, vous parlez de loi euh, euh, Ngouda Mboup te xam naa xarañ nga si lool macha Ousmane Sonko président du de l'ex ex Pastef mu yobaloon ab ndawam pour rek mun a dem retirer li nga xam ne moo fiche de parrainage te bu ñu sukkandikoo si nga xam Ismaïla Madior Fall muy incarné ministre bu yor justice mu ngi xam ne 57 du code. Euh, euh, du procédure euh, électorale, pénale, électorale, 57. L57 L57 Motar Ousmane Sonko munul retirer fiche de parrainage ndaxte sur les listes électorales Muno don électeur d'où ma question est-ce que loolu aussi aussi une provocation de la part d'Ousmane Sonko aussi. non man dama dañu nekk ci Ousmane Sonko conserve tous ses droits et l'intégralité de ses droits. Mais l'article 57... Euh, j'en viens, j'en viens. Article L57, tout Sénégalais électeur peut faire acte de candidature. loolu lay wax Nous avons fait ci 2018 pour écarter Khalifa Sall Karim Wade tout sénégalais règle non doon wax avons fait fa pour écarter bàyyi ma ñëw rek ma pour écarter Karim Wade ak Khalifa Sall par contre. C'est sa interprétation non du sama interprétation. avant de bou bu bu amul woon ci loolu la conseil constitutionnel basé wu ne face à la Karim de seen. mais xam nga carrément ben loi figé wul à chaque fois. non non li ma lay wax dafa dama bëgg ñu déglu ko. allez-y Ngouda expliquez mu leer li mu wax du droit dañu nekk dans une phase xam nga élection présidentielle c'est des opérations. Mm. parrainage waruñu ko woon sax des parrainage peut-être mon mobile loi mais présentation là c'est une condition de présentation d'une candidature Je tax que dañ koy parrainage langage journalistique mais normalement juridiquement il faut avoir présentation c'est pour présenter une candidature mm-hmm. alors la candidature dafa am 9 pièces ak 9 mentions moins com mooy composé dossier parrainage ben pièce pièces. ci ma jox un exemple Je constitution bi waxul ne pour nga candidat il faut nga nek exclusivement de nationalité sénégalaise. Mhm. kan avez joxe euh, carte d'identité Sénégal ak passeport. du ministère de l'intérieur. Mhm. pourquoi vérifier wul ndax nit ñi nationalité ou pas. 2018 Karim de ses droits ont été violés xam nga dama ko parce que fu ñu yob ñu gagné ñu mu dem de inscrire ñu rejeter inscription mais pourtant Karim Wade demna en parrainage jàll étape parrainage ñu doog invalidé invalider candidat Ismaïla Madior Fall ba tey Karim Wade nekkutoon si euh, euh, bobu mu ngi won batay euh, si liste électorale lool la wax té bo démé Bernard Casimir Cissé mi nga xamante mo do directeur de l'information. mo moo def conférence de presse bi sax moom ak le directeur qui actuel directeur Thiandella nous ñaar ñoo Karim sur la base de l'article l eh, L31 son inscription Karim Wade avait fait un recours à partir du Qatar après mu jugee fofu mu def suprême. Mhm. donc bo wax non il faut donc wax mhm kon ce du loolu la vérité des faits. Euh, donc comment se fait-il que pour la même situation motax mal Ousmane Sonko fait l'objet de discrimination. amul leneen nguudo ñu taxaw fofu ba tay. Lu tax ma bëgg wax loolu dafa am solo parce que mënuñu nekk fi Sénégal les mêmes lois ñukoy appliquer bu ñu ñëwee bu le citoyen Ousmane Sonko nous ñu bëgg ko appliquer autrement man mënuma ko comprendre. Euh, Ngouda mais xam nga xam nga dañuy ñëw pour leeral ñu taxaw foofu ba tey article L 57 lan la wax euh, par rapport ak koo xam ne euh, bokkatul ci liste électorale est-ce que am na droit am li nga xam ne moo parrainage parce que le professeur Ismaïla Madjofal Fall nee na boo nekkul boo liste électorale yi mënoo doon électeur. non doon électeur ça n'a rien à voir avec, n'est-ce pas déposer une candidature au conseil constitutionnel Je nga la parce que conseil constitutionnel moi qui wax kan est électeur ak ku électeur parce que le conseil constitutionnel moi rek juge de la recevabilité des candidatures. donc si vous dégué, la DGE. E oui un droit pour refuser Ousmane Sonko li nga xam fiche de parrainage DGE lu mu def loolu la ñuy en droit la voie de fait c'est-à-dire que l'acte est -hmm. Nous ne le pas à une à aucune de ses compétences parce que Amuko, ko xam nga lan moo tax moom dañ ko ni rek organiser tout, DGE du mooy saytu prérogative conseil constitutionnel je vais vous un un exemple. le ministre de la justice il a dit que ni yow ne recevabilité candidat troisième candidature Macky Sall conseil constitutionnel rek a ci mm. ce pas. Mm. mais quest ce qui a changé aussi aujourd'hui léegi dafa am une autorité qui peut ni na substituer au conseil constitutionnel pas. DGE prérogative si ko yokal élection législative moy mom moy saytu candidature yi tu vois pour mm-hmm. parrainage bi mom mm-hmm. moo koy saytu mais fi parrainage bi conseil constitutionnel tout le dossier c'est l'article l' 123 du code électoral gis nga la DGE boîte aux lettres qu'est-ce qu'est-ce là dañuy ñëw jox ko mom organisation rek lay def amul droit refuser à aucun sénégalais bo xamante ni il a introduit un document dûment signé wax ni kii suma mandataire dama bëgg mu retirer ma fiche fiche ko collecte de parrainage dañu ko war a référé bi bi bi Ousmane Sonko def si le droit est dit dañuy annuler décision bobu nonu jox ko ay fiche de collecte de parrainage. Mhm. la DGE ku ko xam xam carrément euh, chef am moo euh, ministère bu yor walum intérieur dafa rattaché directement est-ce que euh, supposons li nga wax ni.